Marc Tendeng maa ngi lay nuyu. Marc Tendeng nga nekk secrétaire général bu Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk euh, tey ji en tant que citoyen d'abord ma lay laaj naka nga gisee manifestation yu bari yi am si réew mi euh, fan yi mujj ak tension politique ak sociale bi nga xam ne euh, Sénégal mi ngi koy traversé ban analyse nga ciy def. Ah, parce que tey en tant que citoyen observation bu ma ci def mooy dama ci am njàqare parce que dafa mel ni léegi Sénégal fi ñu toll nii homme politique dañu prendre en otage la population parce que une minorité d'hommes politiques ñoo bëgg a tenir en otage toute population apporter insécurité totale ci que chaque fois bu amee yëngu-yëngu sur le plan social yi mel ni souvent day am et on a compté beaucoup de morts et ça suffit largement on ne peut pas continuer comme ça il faut fu mu toll nii ñu installé waxtaan dialogue ñoom ñëpp homme politique yi ñu impliqué ci toutes les acteurs de société civile de même que les notables les religieux ñu toog waxtaanee càmbari situation dëkk bi une bonne fois pour toutes dafa laaj ndëpp national ndëpp national la laaj te bu fekkee ne ku nekk dafay toog ci camp mais effectivement ci deful jéego ma la koy deful jéego du sotti donc ñëpp impliqué wu surtout les acteurs les les les nos hommes religieux euh, la société état surtout mooy premier acteur bi nga xam ne moo yor nguur Sénégal moo yor euh, doxalinu Sénégal moom tam daf ci war a euh, teggi tànkam tuuti ndax Sénégal mën a prospérer am jàmm parce que li xew ci dëkk bi jamono ñu dafa nekk Sénégalais fu mu toll nii kenn tëddul nelaw les njaboot yi ils sont inquiets xale yi dematuñu école euh, l'économie est au ralenti aujourd'hui tey jii ñun Dakar dem dañuy xëy sax Euh, arrêté suñu réseau ndax mënuñu liggéey parce que voilà dañuy tiit donc sénégalais fu mu toll nii daal jaaxle nañ te bëgg nañ jàmm ci dëkk bi te moom la ñuy ñaan pour sàkko ko pour ñëpp donc ñuy invité encore nos acteurs politiques à plus de responsabilité à plus de citoyenneté ñu xam ne ñoom tey jii dañuy soxla population bi tey bu ñu faloo fàtte lépp te actuellement li ñu dund ci dëkk bi métti na lool nit ñi xiif nañ lekkuñu am nañ problème mu xëy euh, dund bi cher na donc loolu boo ko bëggee boole ak tension yu mel nii yéen fitna ci dëkk bi kon du sotti Sénégalais yi fu mu toll nii daal gis nañ te jàmm la ñuy man moom laay woo ci yëpp acteurs toog waxtaan jàmm la ñu na woo ci ci ci ci. ñu gis ni Tendeng heure bu manifestation amee euh, Dakar Dem Dikk bokk na si ñi nga xamante ni ay victime lañ parce que dañuy saccager seeni bis euh, di ko toj di ko lakk comme manifestation bi mujj est-ce que mën nga ñu wax bilan bi exactement naka la demee ñaata bus la ñu lakk leeral aussi euh, ci ñuy wax ni bus yu ñu lakk nekkul woon ay bis yu fonctionnel mais ay bus yoo xam ni dafa nekkoon en panne ñu def ko ca dépo ba pour nga indil ñu si ay leeral waaw dëgg la parce que tey jii bu ñu ko doon chiffre en terme de bilan tey li ñu perte ci xaalis kenn xamul ni mu toll bari na bari bari waaye boo xamante ni day na waar mais attent bu ci nekk see euh, mooy jafe-jafe bi ci nekk mooy fu mu toll suñu xel la dalatul waaw suñu suñu abonné Dakar dem bi dañ ko menacé parce que tey sénégalais bu amee yu mel ni souvent victime souvent euh, Dakar dem dikk la euh, Auchan nga total te Sénégal dañu war a xam ne muy Auchan muy ñeneen bu ñu wax ne tubaabee ko moom c'est des sénégalais qui travaillent Dakar Dem Dikk aussi ay sénégalais ñoo fi nekk ñun ñëpp ay patriotes lañ ñu nekk Sénégal ci mbir la doon pare l'ensemble des sénégalais sont des patriotes kon bu ñu jël mbir bi méngale ko ci ab camp wala méngale ko ci gouvernement donc responsabilité bi dafa laaj nit au sens du patriotisme parce que li ci xew jamono ji métti la Dakar Dem Dikk surtout fi ma nekk man tey jii tey jii fu mu toll nii patronat bi dañuy tiit ndax seen avenir entreprise déjà ñu dañu am ay jafe-jafe ci entreprise bi ci doxalin bi ci gestion bi ak suñu avenir ndax dina continuer Dakar ñu exister mais bu ñu xëyee tey ak le peu de bus qu'on a parce que tey jii dañu manqué ay bus état bi gën nañu ay bus depuis deux mille vingt mille quatre cent bi ba léegi gisaguñu ko parce que tey jii cent véhicules sax mënuñu ko jënd ci réseau urbain bi Sénégal dañuy toog ci arrêt bi yaakaar kon bu ñu xëyee encore manifestation yu am ñu mel ni ñu xëy di taal suñu bus donc c'est des emplois qui sont menacés te lii bu continuer comme ça dootuñu amati benn bus bu ñuy génnee sëñ sax dañuy xëy ñun bu nekk ay benn bis moo ci doomu leen ñaar bu bëree ba bëri kon dañuy xëy di talaat ay bis météo te li xew kër xew ci Kër Massar ci MTOA bi nga xam dañu fa am benn mini dépôt defoon ay bis yoo xam ne ay bis yoo xam dañuy ay panne ko réparé ndax bis yu jógaat ñu ko dugalaat ci réseau bi liggéey bis yooyu la jaay fekk foofu taal ko te loolu dafa ñaaw loolu acte bu lu ñaaw la di ko ñaawlu bu baax sénégalais xam ne def loolu dafa ñaaw te état war na jël responsable def ay enquête nécessaire pour situer les xam nga def liggéey bu ñu leen a teg teg ci yoon daan leen daan yu sévère donc loolu dafa nekk ne euh, ay perte financière yu énorme la chiffré ñu leen ko chiffré ay milliards yéen ci loolu li xewaat ci weer yi rek gis nañ ko am na bis yoo xam ne ñett yoo xam ne nañ ko Orange Bill hmm. ne tal nañ ko Mbour donc est-ce que lii mën na continuer à prospérer ñu toog suñu propre alal di ko jaay jaawatle mais yaakaar ne alalu nguur la li doon alalu nguur alalu sénégalais la parce que sa impôt la dagg di ko dagg ci maçon bi di ko dagg ci ouvrier bu nekk waaw sénégalais seen impôt la dagg dañ jënd ay biir bu nekk au service des sénégalais kon état moomu ko parce que Macky Sall du ci yéeg doomu ci yéeg mais su ci yéeg Sonko muy moom ak yeneen ñu nekk yàllu position seen doomu duñ ci yéeg kon ñun sénégalais ñoo dañuy yàqal ay Sénégalais yu liggéey Dakar dem bi te bu ñu xëyee ñun toog parce que yeewu xam fi la jëm moo gënu yeewu uti fu ñu jëm te bu ñu moytu ñu tal suñu biir ñu yeewu xam ne dem bi la xëyee war nekk au service des Sénégalais mën leen permettre ku ci nekk koo nekk ci Dakar koo nekk ci Sénégal nga mën a ci oto Dakar dem bi mën a dem faji sa soxla mën dem liggéey mais situation bi mu continuer comme moo tax ñu ñu leen ñaax ñu leen ñu xam ne alal bi seen alal ñu ko war a sàmmandoo bi ñëpp waaw. Hmm. tey ji état bi war na mën a protéger Dakar Dem Dikk ak li nga expliqué yëpp pour yow lan la mën a def pour la protéger li nga xam ne mooy patrimoine bi di Dakar Dem état loolu kenn moo ko ci xaar moo ci war a jiite état dafa war nekk dans l' anticipation am na yoo xam ne. buñ koy séntu muy ñëw dañ ci war a gaaw àpp ci ut ci def ci sécurité bu te bu sécurité bu ci jiitu ne am na ay euh, yoo xam ne mën na ut mën na mën na jur ay jéego mbala ay fitna dañuy xëy ne suba réseau du am informer la clientèle mais état tey moo jël ay matukaay à travers le ministère de l'intérieur à ñu mën a euh, assurer sécurité bi waa Dakar Dem Dikk ñu fay liggéeyee sécurité clients yi ak yëpp ak sécurité matériel bi mais loolu moom manqué tey ba tey jii fu amee manifestation wala fu amee ay yëngu-yëngu rek li a def mooy taal bis Dakar Dem Dikk mën a taal au champ mën a taal ay station te loolu lu ñuy ñaawu la kon mënuñu continuer comme ça di xool suñu bus ñu koy taal di menacer suñuy emploi parce que ñun tey jii ah pare nañ ci dimension yëpp ah te ñu jot a taal suñu bis état war na def liggéeyam def ay enquête fan lañ ñëw taal bis yi parce que mënuñu continuer di taal suñu bis yi rek continue comme ça donc carrément bi daal ñu ngi koy ñaxtu état mu jël ay mesures am à travers ses forces de défense et de sécurité di interpellé nag ministre de euh, Antoine Félix Diome ñu détaché ay démembrement yoo xam dañu mën a protéger nos deux dépôts parce que tey bu ñu xasee ba taal bi ñu dépôt boobu ko kenn xam ne fa la suñu nekk moo nekk dépôt de réalisation moo nekk dépôt d' foofu aussi administration bi luñu partie de l' administration donc loolu bu ñu ko defee bu ñu ko def bu ñu jëlul ay matukaay rek kenn xamoo xew suba te mieux vaut prévenir que guérir Euh, tey jii euh, euh, Tendeng lan mooy difficulté yi nga xamante ni entreprise bi di Dakar Dem Dikk mi ngi koy traversé ngeen bëggoon ko fësal pour am ci saafara. am na jafe-jafe Dakar Dem yi que syndicat yi foo nekk ñëpp délégué du personnel yi yëpp gis nga leen dans les différentes télévisions dans les différentes chaque fois ñuy alarme yi directeur di ko jaay yëpp am nañu ci ñoom parce que même problème mooy am rek mooy gestion bi. Mm-hmm. ku ñëw ah, yaakaar ne alal bi li la dénk sa alal la alal askan bi la. ñu def ay recrutement yi doon neex basé ko ci ay euh, appartenance politique ay appartenance régionale ay mbokk maa ànd ak def politique maa ànd ak ci def mouvement ba mu indi ay problème de gestion donc ñett yi moo fi am Dakar mooy problème de gestion moo continué depuis deux mille un ba tey jii problème de tension trésorerie bi ñu dugalee xaalis état xam fu mu jaar xam nga euh, euh, ak ak xam dañ koy salfaañee amatul benn visibilité sur xam ne sur le plan social Dakar ni ñu koy nekk ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi fi te loolu état am na ci part de responsabilité parce que état mënul xëy loolu Dakar dem di jox ko xaalis bu weex tel utal ko ay oto utal ko lépp di ko accompagner financièrement si perte d'exploitation yi am par rapport au voilà euh, aux sociaux yi am ci réseau bi donc pare du am taxaw seetlu du yëngu corps de contrôle yi muy su ko def IGE muy euh, cour des comptes su defee off nag du ñu jaar mukk Dakar dem pour ñu dee def lu ko neex caxa caxatee suñu xel caxa caxatee suñu gestion ba ba tey entreprise bi actuellement fu mu toll nii Dakar que tey jii seen emploi sont menacés la pérennité de l'entreprise est menacée donc ñu ngi interpellé état mu am un regard ci li xew Dakar dem de ñu wax d' administration bu fi nekk dafa liggéey parce que conseil d' administration amul conseil d' administration dans Dakar def dara parce que bële paase ñëw na addu gars wax leen bu ñu def inauguration suñu construction euh, siège yu direction générale ci biir dépôt Ouakam wax na leen ko mais Dakar ni mënul continuer comme ça di recruter comme ça abusivement te ñu war nañu xalaat gestion bi mais waruñu woon ci ay wax dañu war a envoyé les codes de conduite ñëw saytu li xew donc jafe-jafe yooyu mu ngi fi ba léegi te changé gul ba léegi fu la nekk nii waaw équipe bi fa nekk nag bon bon gisaguñu bopp jéego yu rëy ñu defagum parce que difficulté yi amoon démb moo fi nekkaat ba tey sur social d' donc ñu ngi ñaan encore équipe bi fi nekk te si Sylla di ko diriger da def ay jéego pour régler problème mu travail régler problème mu entreprise ndax entreprise mu nekk fiable tey fu may wax ak yow nii dañu déployer réseau euh, dañu nekk ci maillage réseau international même si fekkee ne amuñu les moyen yi xam ne pour faire cette politique donc ñu yaakaar ne état mille quatre cent bis yu ñu digoon dina ñëw ak ak ak ak bis interurbain bu ñu ñëwee boo defaa ñu defaraat Sénégalais yi ñëpp ñu mënti nekk santé ko Dakar yi parce que Dakar yi patrimoine national la waroon yem ci Dakar kese a dans toutes les régions le plan urbain que sur le plan interurbain moo tax fu mm-hmm. nekk à Saraya dañ ko war a ay bus yoo xam dañuy dem interconnexion et tey ñu jàng dañ koy continuer dans le centre du pays éventuellement mais tey jii parce que ñun suñu ambition weesu na jafe-jafe yii suñu ambition moo gën a naat jafe-jafe yi mais jafe-jafe dañ ko war a saafara ñu gën a jaawee travail Dakar nekk ci dans la paix euh, tiitaange bi fi am ak désarroi bi am mën a dem ci kaw travail yi mën a liggéey ci jàmm ñu mettre leen dans les conditions de travail yu acceptables jox leen ay salaire yu décent parce que salaire yu travail am bi c'est pas des salaires décents de la situation actuelle ci chef de village bi ak conjoncture bi donc salaire bi mënul couvrir à besoin les plus primaires salaire yi caractère alimentaire kon war nañ mën a àddu ci augmentation salaire yi revalorisation salaire condition de travail ko xam ne xam na transport bala un technocrate boo xam ne dafay xam dafay évoluer ci ñu doon transport mënuñu continuer à profiter des hommes politiques comme ça luñ ñëwee salfaañi suuf a bi ñëpp ba pare dem seen yoon kañ lañ topp donc loolu moo fi nekk Dakar dem te ñu intérêt état mu àddu ci loolu mu mën a continuer à rayonner def parce que état dafa teg ay jéego yoo xam ne daf ñu ciy mititel. Hmm. parce que tey jii BRT bi ngay gis ne waroon nañ ko. jox BRT naa la si laaj sax crainte yi ak BRT bi surtout oui. am na beneen bu bees boo xam ne état mi ngi ko tegal bu tudd réseau de circulation du transport collectif ñoo ci créé trente deux lignes de rabattement te état génne na financement ba deux cent dix milliards parce que financement bi ci a dem pour deux cent quatre vingt véhicules yu yu gaz loolu deux lignes dans la banlieue avec un financement de trois cent vingt et un milliards xam nga pour deux cent quatre vingt cinq véhicules plus au au gaz. Dakar dem fekkee parewul fu mu toll nii ba am ay bus donc ko rey dinañ ko phagocyté dootul existé te loolu la ñuy bañ ñun moo di ko ñaax ne ko bi tey jii BRT bi comme rëcc nañu bu bees boobu di RTT war nañu rëcc donc mais BRT bi ba tey bàyyiguñu ko parce que ñu continuer ñaax état mu teg ko suñu loxo am fokk am bu dee comme ni xew petit train bleu rek petit train bleu terre bi da ko ñëw rey ko train bi dafa ah, mooy am ndaa rek ndaa am ndaa toj ndaa te bu ñu continuer Dakar Dem Dikk avec projet BRT ak projet de rabattement bi ñuy wax noonu interbanlieue RTC la tudd donc bu Dakar Dem Dikk amul taxawaay bu dëgg nañ xëy Dakar euh, demaat au chômage comme ce qui s'est passé avec la la SOTRAC dañu dawaat rek di topp ci ay bor ay xam nga ñu am ci ay jafe-jafe ñu dox ci wala ñu feebar ci te loolu li moo tax on est en train d'alerter l'État ñu ci Dakar dem di tox suñu bis yi ñu dégg parce que depuis deux mille vingt la ñu dégg mille quatre cent véhicules ba depuis deux mille vingt trois ans après ñu koy gis nga def trois cent six milliards ci DRT encore nga projet taw bi da ngay trois cent vingt et un milliards beneen société bu bees kon Dakar dem ñu ngi jëm kon tey jii ñun la nar Dakar dem bi parce que moom mooy responsable parce que moo jël ay dirigeants yoo xam ne xamuñu parce que état jox li ñu Macky Sall jox daf ñu dimbali Macky Sall nous a aidé appuyé sur tous les plans jox nañu xaalis jox nañu subvention d'équipement jox nañu suffisamment de matériel danañ diggante deux mille seize ak deux mille vingt trois bi may wax ak Macky Sall dañuy jox ci oto neuf cent cinquante huit véhicules Abdoulaye Wade diggante deux mille un à deux mille douze il nous a donné sept cent sept cent vingt sept véhicules douze ans mais Macky Sall à l'espace de cinq ans il nous a donné neuf cent cinquante huit véhicules mais ana oto yooyu yëpp lépp nax saa la dara